ñoo baax a baax. tey nga may la am ngont ci sa euh, kanam sa rakk ji sëñ Mamour Gueye ban mbégte nga am tey ci ngont bi. waaw sant bu baax rek ndax euh, sëñ Mamour yàlla moo dogal ñuy ànd ci xaside yi muy sama jëwriñ ndax kuréelu. li nga xam ni moom la moom laa àndal moom mooy jëwriñ ji yàlla boole ni ci cofeel boole ñu ci ak déggoo boole nu lu bari eh, muy sama rak di sama xarit yàlla dogal itam ngont yi nga xam ni moom la ñuy waajalee poroxaan eh, mu am ci pas-pas ak pësté ba tax mu ànd koog waa gox bi ak waa koñ bi eh, jëlal ko soxna jaara ngir defal ko soxna jaara loolu nag lu ñu am mbégte la ngir xam nañ ni yéeneem rek la doxal ngir lim bokk yéene poroxaan su ko mënaloon boppam moo koy def te du def ngont waaye xam gi xam ni ngont yu bokk na ci liy waajal poroxaan moo waral mu mu jël ko ñu sant ko ci loolu bu baax gërëm ko ci ñaanal ko yàlla yàlla dëgëral pas-pasam ak taalibeem ak lépp lu mu yéene ci lu baax yàlla may ko mu mottali kon daal ñu wax soppe yi sëñ Xaadim moom pareel na Porokhane waaw Porokhane moom wax ni ñu ngi koy waajal jekk nañ bu yàgg incha allah jërëjëf kon ñu bàyyi nañu jërëjëf